Euh, pour terminer en beauté euh, Guinao li nga xam qualification qualification euh, Coupe d'Afrique quasi parfaite mais également gagné une rassurée publique rassurer public bu Sénégal bi le le askanu Sénégal di xaar ci nga équipe nationale du Sénégal Natango, yu Sadio fasciné football c'est une dernière journée sixième et dernière journée qualification li nga éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations fasciné fas Cameroun en début d'année 2000 2022 ñu war cee daje ak ñi nga xam ñoo di wa Swatini euh, d'ici un peu plus d'une heure fi ci pelouse bu stade la Dior bu euh, Thiès euh, li nga xam nak mom moy enjeu match bi wax nañ leen ko Sénégal dafa wara terminer en beauté ginnaw cinq matchs yi nga football n'ako 4 quatre victoires ben match nul mais surtout match nul bi nga xam match nul décevant bi nga xam def nañ ko fofu ci Brazzaville seen ak Congo ñu d'aldi di ci def match bo xam prestation bi ça laissé tout le monde sur sa faim ci li nga xam le système bu l'UCCG bi 3-5-2 ci un un ak ñi nga xam euh, Congo euh, Sénégal wara a terminer euh, de la meilleure des manières boudé adversaire du Sénégal bi contrairement à Sénégal sur les 5 matchs 4 défaites lañ ci un match nul déjà éliminé wayé un entraîneur bi nim en conférence de presse d'avant match li ñu bëgg mom moy équipe nationale du Sénégal et faire un bon résultat pour terminer en beauté xam équipe bii dajeek Sénégal yëpp ak standing bi Sénégal am dañuy bëgg def un bon résultat ngir daal di mën a jeexal en beauté li nga xam ne moom mooy match bi donc loolu moom mooy enjeu li nga xam ne moom mooy match bi war a dox diggante ci kanam tuuti Sénégal ak Swatini ñuy xaar nag match bu am solo ci sunu gaynde yi il y aura certainement des changements pas de système sans doute 3-5-2 bi dinañ ko reconduire ci kanam tuuti dinañ leen jox 11 bi mais retenez que y aura quelques changements ci li nga xam ne moom mooy 11 bi on verra ça tout à l'heure mais euh, de toute façon jàpp leen euh, xam ci avant match bi ngi leen di en direct jamono ji ci YouTube ou 13TV euh, ba ci biir match bi réaction à la fin du match dara du leen ci rëcc lépp dinañ leen ko jox fii ci stade la Dior bu Thiès ngeen ce sera à huis clos malheureusement ak supporters yi nga xam ne ni ngeen ko gisee sànq ci image yi am ñëw ci porte bi ngir accueillir li nga xam ne moom ñaari équipe mais malheureusement match bi c'est à huis clos donc dañ ñëw tatagal gaynde yi ci entrée bi mais delluwaat seetaan match bi ci seen cœur euh, euh, puisque euh, le match sera se passera ici ci pelouse bi nga xamné sank ba tay ñu ko doon arroser ngir mu mëna nek ci condition yo xarmé dina permettre ñi nga xamné ne ñoo di joueurs yu Sénégal ya ak Swatini ñu offrir ñi nga xamné ne ñoo di gaynde yu offrir li nga xamné ne ñi ñew ñëw seetaan match bi daal di seetaan match bu neex bo xamné bal bi dina daw bu baax baax ci pelouse bi donc on est là on attend euh, ci li euh, entrée joueurs d'un moment à l'autre Nous allons un peu apprécier l'ambiance, nga ambiance environnement bi en attendant que joueurs digne Les petits 13 et c'est parti Mbaye Diagne moom moo joxe li nga euh, coup d'envoi bu match bi euh, voilà c'est ça Kalidou Koulibaly moo yor noonu bal bi jox ko euh, à côté Fodé ballo tourné contrée. attention frappe enchaîné, but ouverture du score du Swatini 1-0 quel but quel but quel but à la quatrième minute de jeu quatrième minute de jeu ouverture de score pour Swatini Swatini mi ñëwuñu pour faux. et le joueur de Swatini bi nga xamné dafa ñëw enchaîner un joli frappe bi nga xamné ne mënu ci dara le Sénégal qui euh, blanc le ballon Sénégal qui va attaquer Abdallah Sima moo yor bal bi delloo na Abdoulaye Seck jox na passe en profondeur ndax Abdallah Sima dina ko jot euh, non sortie de but. pour cette ben attaquant Mbaye Diagne wala kan. Euh, défense de Swatini dégagé il aura plus de liberté pour attaquer attention Nampalis Nampalis Djornabalbi. Lopi Lopi euh, Crépin plutôt attention passe pour euh, position d'orge pour Fode Baloture, Touré Kalidou Koulibaly Mamba attention passe intercepté récupération rapidement Kalidou Koulibaly Moyer, non noonu ko Kalidou Koulibaly def passe dans l'attaque tranquillement pour le gardien de Swatini ben écoutez, euh, la première période n'a pas été effectivement de grande qualité, hein, on l'a vu. Euh, malheureusement, on encaisse un but sur euh, une, seule frappe de, l'adversaire. Mais d'un point de vue offensif, dans la production, effectivement, on a, on a des manques certains puisque le Sénégal ne s'est pas créé en 45 minutes d'occasion. nacional ganhando, equipe nacional ganhando, equipe nacional ganhando, equipe nacional ganhando. Milenio do Nusiki, Milenio do Nusiki, CNN. supporter bi doo dee gaynde Qu'est-ce qui a pas marché? Le Sénégal avait l'habitude. Comme je l'ai dit, le Sénégal avait l'habitude de mener. Maintenant, moi, ce que je veux de cette équipe-là, quand on est mené, c'est d'avoir des joueurs qui prennent des responsabilités et d'aller dribbler et de marquer. On l'a vu en deuxième mi-temps. Ils, ont plus, ils ont pris plus de responsabilités. C'est pour ça qu'il y a eu ce but-là. Franchement, on peut perdre contre la plus petite équipe. Euh, la preuve, quand en, 2002, on avait perdu contre l'Arabie Saoudite, ça ne nous a pas empêché d'aller en quart de finale de la Coupe du Monde. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on joue, je sais que euh, l'équipe du Sénégal, et n'oublions pas qu'on a pris aussi 30 joueurs, on a fait des changements. Et ce n'est pas une raison, encore une fois de plus, je le dis. Mais je crois que vous tirez des, sonnettes d'alarme. Euh, on vous, entend. Vous avez raison sur, quelques, sur des choses. Et je crois que maintenant, moi, en tant que conseiller d'Augustin Senghor, on va en parler et voir aussi, parce que l'équipe du Sénégal, c'est l'équipe de tout le monde. Vous ne parlez pas pour parler, vous parlez pour le bien du Sénégal et pour le bien de cette équipe-là. On vous a entendu, on va, faire, on va faire une réunion pour voir les deux matchs, ce qui, était bien et ce qui n'était pas bien, et le reste, on, verra. Effectivement, le, système n'a pas fonctionné ou co fonctionné sur le plan offensif. Mais je dirais que sur le plan défensif, il y a quand même euh, beaucoup de satisfaction. Maintenant, sur le plan offensif, c'est vrai qu'on n'a pas pu... Euh, on n'a pas pu combiner, on n'a pas pu euh, trouver les, extérieurs, on n'a pas pu, au moment donné, trouver nos attaquants pour remettre euh, au niveau de nos relayeurs au milieu pour après écarter le jeu. Oui, satisfait de, pas mal des garçons qui sont là, que ce soit Dia, le gardien, que ce soit Napalis, que ce soit Abdou Diallo, Malo Touré, tous ces garçons qui sont arrivés, c'est des garçons qui ont vraiment de la qualité. C'est leur première fois en Afrique. Je pense qu'ils ont pris plaisir à être avec nous. En même temps aussi, ils se rendent compte de la dure réalité de ce continent, la dure réalité du football africain. Mais je pense que c'est de bonne augure. Ils vont continuer à progresser, ils vont, on va continuer à travailler. Je suis plutôt satisfait d'eux. <coughs> Deux matchs, deux matchs nuls, avec équipe au Sénégal pour nul. Lolo, la Wanefi, Lolou, li may wax rek ci euh, ci Aliou Cissé coaching lay wax man coaching manam fluidité bi jeu bi yow comment se fait-il que à chaque fois yow ñep xamé nañu légui Afrique ñep xamé nañ la ben affaire dañ lay tégal ben équation tactique nga réer di xulo ak arbitre et il y a un problème de coaching soit bu bëggé gagner coupe d'Afrique dama koy wax fi billahi bu bëggé gagner coupe d'Afrique na améliorer wu ci coaching bés bu ko défé dina gagner coupe d'Afrique des joueurs de haut niveau non mais ces joueurs là yo yo mais attends ces joueurs là tu as vu Ils fi mais mais ils joué c'est lui le métronome euh, métronome bi la hein? mais boy, Sarr bob. nga titulariser ko def ko continuité mu le, ce playmaker nga jël ko ko ci banc bi tu le mets dans le banc sur le banc alors que là, euh, au Congo wane na Sénégal bi yëpp d'accord ci gure googule ñun de dama lay wax leen de nañu sant yalla ba ñu am Sadio Mané buñ ko amuloon tiaf xam. bon euh, pour man déception nit ñi buñ ko woné c'est de bonne guerre parce que euh, def match nul quand même ak Eswatini euh, nekkul loo xamante ni euh, honneur la ci Sénégal. mais lenn rek luma mëna wax lenn luma mënti wax moy euh, bu mu entété wu nit ku nekk da ngay am say limite euh, je pense que bu fekkente ne ñu teg kenn ci wetam pour mu jàppale ko ci liggéey bi dina ko andil dara c'est tant mieux man je suis preneur mais comme moom lañ jox responsabilité équipe bi ba fi mu toll nii moom moo ko yor ben écoutez dañuy plier wu ci li nga xamanteni mom moy volonté mu def xam-xam bi andi man personnellement dama yàgg wax depuis buñ ko euh, falé que man Aliou Cissé doyuma comme sélectionneur nit ñi dañ koy juger ci ay limitam man tay juger naa ko ci ay limitam dès le départ mënatuma leneen lu nga xamanteni dama koy juger ci ay résultats même bu fekkente ay choix am yu bëri D'accord. alors Mbok 13 TV gis na ni ngeen ko gisé ci biir match beeg image yi Sénégal dafa mujjé Tembo ak Swatini ci score bu un but partout euh, Swatini mo njëkk duggal biu fajar comme niñ koy waxé dans le jargon euh, populaire quatrième minute de jeu ci la Dougal Swatini euh, duggal match bu metti avec beaucoup beaucoup de difficultés mais Sénégal au bout du bout 95e minute de jeu ci le Cheikhou Kouyaté dal di reprendre un tir boo xam ne góol bu Eswatini da ko repousser mu égaliser sauver l'honneur Euh, pour le Sénégal. Le mot euh, n'est pas assez fort, sauver l'honneur entre le Sénégal et euh, Swatini alors que tout le monde ou majorité sénégalais donne le Sénégal daal di jaar ci kaw Swatini ni Algérie championne d'Afrique dans di def ci dernière match de 2 5 à 0 match bien que liñ ci retenir na 3-5-2 bi nga Cissé ça a encore posé problème le Sénégal dans ci début match bi euh, première mi-temps bi Sénégal zéro occasion zéro tir cadré Crépin diatamov diata mo fa am tir euh, c'était pas cadré du tout ci première mi-temps bi ak jeu bo euh, c'était euh, trop trop lent Il li nga rapidité pour permettre de déjouer le bloc très très bas et très compact bu équipe bu Swatini bi en deuxième période gis nañu Sénégal ñëw avec d'autres intentions ak un peu plus de vitesse ci jeu mais ça restait pareil ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, solidité ki nga xam ne ñooy équipe bu Swatini ba tax ñi nga xam ne ñoo di wa Sénégal dugal aux ultimes secondes mais également autre chose qu'on peut noter beaucoup de changements à la fin euh, yo xamné il est passé de 3-5-2 à 4-3-3 mais après on a vu beaucoup d'attaquants beaucoup de joueurs offensifs mais ça n'a rien donné malgré entre ou Sadio Mané euh, Gane entre autres ça n'a rien donné euh, donc beaucoup de questions qui sont revenues sur le système sur l'utilisation des joueurs de ngeen suñu journaliste si réaction yi nga xam wax nañ ko système bi beaucoup de questions qui se posent donc euh, d'où la nécessité sans doute euh, fii ak li nga xam euh, début éliminatoire coupe du monde yi ñu xoolaat bu baax li nga xam ne moom Aliou notamment et son staff mais également joueurs ngir ñu mën a daal di wane beneen xar kanam ci début éliminatoire coupe du monde mais également coupe d'Afrique bi nga xamné Sénégal dina ci dem début 2022 mu ngeek ak xarit beaucoup de choses à dire mais euh, fofu lañuy euh, rek daal di yam euh, jox len rendez-vous très chaîne très prochainement ba tey ci biir chaîne YouTube ak su nga xamné mom moy suñu Facebook ak Instagram ak Twitter ngir ngeen mën suivre actualité sport football en particulier ja ngeen jëf di remercier équipe technique bi yëpp bi nga xamné ño ñoo ak ñun fi ci stade la Dior bu Thiès di leen jaajëfal yeen ñu ñu doon suivre bu baax baax di len wax ngeen way duñu suivre ci biir 13 TV.